ñoo nekk fu nekk ñu ngi kontaan ci ñëw bi nga ñëw yéex a ñëw bi nga ñëw mu suñu naqari parce que xam nañ sa bilan gaa dem seeti ay sëriñ nekku ci waaye li ci nekk mooy Sénégal lañ la dénk Sénégal lañ la dénk ci marché bi Sénégal lañ la dénk ci mbay mi Sénégal lañ la dénk ci école bi Sénégal laa ngay dénk ci wér gi Sénégal googu lañ la dénk Sénégal googu lañ bëgg ngay nemmeeku di xam fu mu toll yàlla la ci yàlla dimbale ñu ngi kontaan bu baax itam ci nga toog ak ci fan yu tedd yi te nu xaar yonent yàlla Muhammad màggal ko euh, bégee ko yàlla indi la fi nga ñëw niri na incha allah ñu ngi yaakaar barke bi ñu yaakaar ci yonent yëpp yal na la ci yàlla jiital ala fokk itam yow la ci yàlla jiital parce que yow la yàlla jiital ci kaw Sénégal yëpp yaay président de la république Sénégal te président de la république Sénégal moom la yàlla di njëkk a laaj balaa laaj keneen buy mayee itam moom lay njëkk may balaa may keneen ñu ngi ñaan yàlla may leen na mu gën a lëwee yàlla may leen na gën a dëgëree yàlla may la na mu gën a leeree yàlla may la na nga gën a yëgee sa peuple sa peuple yëgee la ko su ko defee bu boobaa ñu ngi yaakaar ne Sénégal gi Sénégalais yëpp di gént yàlla mën na ko dëggal ci yow Sénégal gi Sénégal yëpp di gént ba nga xam ne kenn du fi dem ci géej gi Sénégal gi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di gént ba nit ñëpp am jàmm su ko defee Sénégal googu yal na ko yàlla jaarale ci sa loxo ba yàlla tëral ko ba ba bañ àgg ci jàmm ñu ngi kontaan ci gis ni ci biir eh, population bi fii nga toog ni tey ci fani gàmmu gi ñu ngi doon tabax tabax bii tabax bii tabaxuñ ko pour euh, am nañ xaalis wala dara waaye fii mën naa la wax ni université la ndax li Cheikh Baye ma daan jàngale yëpp fii la daan toog di ko jàngale ñi ko wuutu di gannaawam itam di jàngale fii dañuy toog di jàngale waaye léeg-léeg dañuy toog di jàngale ba yàgg taw bi ñëw yàq suñ téere yi tasaare ñu ba njàng mi du sotti am ci ñoo xam ne dogu nañ ne lii danañ ko xeex ba nga xam ne kuy jàngalee te di nga toog am jàmm ñii jàng dinañ toog am jàmm ba nga xam ne euh, taw bi dootu yàq suñ njàng dootuñu tasaare dootu yàq suñ téere yi bokk nañ ci li tax ñu tabaxee ko ni rafetal nag rafetal la rek jamono bu nekk jumaa ji ba mu paree ñu di ko sanc président Abdoulaye Wade moom la taseet moo ñëw sanc ko bii itam bi mu paree nga xam ne ima wax na leen ne université la parce que rôle université lay dox ñu koy sanc teew yaay ñëw sanc ko yow yàlla may nga sanc ko te comme ni nga ko waxee ci sa wax ñaar yooyu rek ñoo amee diine ñaar yooyu rek ñoo amee réew diine ak xam-xam diine ak xam-xam ñoo amee réew kon nag gis ñu ngi dégg yaa ngi encouragé diine won importance bi mu am ci doomu aadama yaa ngi koy wone te itam wone woo ko rek em ci ne yaa ngi koy jëfee xam-xam itam voilà comme ni nga ko xamee gis nañ yëngatu yi nga xam ne yaa ngi koy bees pour jëm ci école bi jëm ci jàngalekat yi yooyu yëpp ñu ngi koy gis te loolu yëpp mooy li nga xam ne moo mun a tabax abenir bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp yaakaar ci yéen ba teg leen ci place yi ñu ngi sant yàlla bu baax bi la yàlla tegee ci place bi nga xam ne euh, yaa ngi toll ci ndaw encore say gént ba tey mën naa nekk gént yu foor a foor ñu ngi eh, bu kay ko rek ñoom lañu fi daan waaye tey ñu fi taaj ndaw boo xam ne moom ndaw ñoo maase bokk gént bokk lu ñuy bëgg yal na la ci yàlla dimbalee loolu nga bëgg pour Sénégal yépp te wax ko yal na ko yàlla dëggal yàlla bu Sénégalais yi di demati feneen di wuti yàlla nañ am fii lu fi téye yàlla bu suñu doom di suuf ci géej gi di dem te Euh, euh, outil te li am li ah, lii outil mën nañ ko am fii su fekkee nangu nañ liggéey bu baax a baax liggéey nag du da ngay dem rek ci bureau yi wala diplomatie mais tool yi itam liggéeyukaay la mbay liggéeyukaay la moo tax am nañ projet mbay bu rëy ci tey la ñu seen ci ci quatre 400 euh, hectares yoo xam ne dañoo pare pour di gént lépp lu suuf di mën a génn pour jox ko doomu aadama rek suuf soosu mun na koo génnee moo tax ñu ngi sonn ci. tool ñu ngi sonn ci tool yooyu euh, ñu ngi yaakaar incha allah feeg ñaar ñetti at ñeenti dina joxe euh, fruit incha allah ñu ngi kontaan ci sa toogaay fii ci ñun population bi di xool seen président de la république président de la république di xool population am xoolante ñaari doole yooyu yëpp yàlla mun na cee génne barke boo xam ne incha allah dina feeñ ci sa yal na ko yàlla feeñal ci sa liggéey. wax nga ko Sénégal soxla na jàmm soxla na ñaan ndax soxla na jàmm Sénégal soxla na ñaan ndax soxla na génn ci difficulté yi nga xam ne am na ci àddina bi yépp te Sénégal benn parti ci àddina bi sox soxla na ñaan pour yàlla musul ñu ci yooyu ñu ngi ci di ñaan guddeeg bëccëg soxla na ñaan ndax itam bëgg nañ lépp loo xam ne dafay yóbbu nit ci développement bu bu aw yoon bu dëgër bëgg nañ caa àgg bon tamit soxla nga ñaan dina ñu ngi lay ñaanal ci loolu mosuñ laa ñàkk ñaanal benn waxtu suñ président de la moom la ñuy àndal moo nekk ci suñ kaw moo nekk ci suñ xel moo nekk ci suñ xelaat moom la ñuy ñaanal yàlla moom lañ bëgg yàlla defal ko tawfiq parce que tawfiq am mooy tawfiqu sénégalais bu nekk ndax loolu sénégal yi bëgg yépp dëggal ko yow lañ ci délégué ne la jiite ko ak ñi nga àndal donc yàlla moomu la teg foofu jiital la Sénégal yépp jiital la yàlla moomu du la bàyyi te ànd te dimbalewu la ñu ngi yaakaar yàlla yokk ma dem ci yow bañ gis Sénégal bi nga xam ne moom la Sénégal bu nekk di génti ci Sénégal développement am am xam-xam yépp yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo ngeen dëggal ko ñu ngi sant mbooloo mu tedd mi ñëw ngir déggee seen suñ président gis ko xool ko déggee ko loolu itam ñu ngi leen ciy gërëm bu baax euh, ci seen teewaay ci wone ne fonk ngeen ñun ñëpp fonk nañ suñ président te ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal tawfiq yal na yàlla dimbale la yal na yàlla saxal la yàlla àggali Sénégal ci gént yu kawe yi nga xam ne yaa ngi koy gént sénégalais bu nekk di ko gént yal na ko yàlla feeñal ci seen loxo ak ci seen ay ji ngeen toll incha allah yàlla yàlla dina leen ko defal jëf ci sa teewaay néeri na jërëjëf ok amin amin amin bii fële la ne eh Bassirou Diomaye Diakhar Faye kado baa ngi ah, lu nekk ci nag tarkala macha allah tabarkàlla macha allah ñu ngi bég di kontaan lool ci bés bi oustaz arabi yaakaar naa ki ñëpp doon xaar ñëw na waaye bi mu ñëwee itam yëf yi leer na wax dëgg yàlla moom ak sëriñ bi ñu ngi doon déggante moom ak ñi war a déggante déggante nañ wax na